asalaamaaleykum mbokk Ndukumaan asalaamaaleykum mbokk kafrin sama kàddu gu jëkk kàddu gërëm leen la sant leen gërëm leen ci teeru bi ngeen ma teeru tey fii ci kafrin ak Ndukumaan yàgg nañu ma teeru teeru yu rafet yu am solo waaye gis naa fi tey lu mu mosul gis ci kafrin gis naa fi tey lu ma mosul gis itam ci Mbirkilaan waa Kaolack ci yoon wi teeru nañu ma waa Fatick teeru nañu ma wane nañu ne namoon nañu ma waaye man it namoon naa leen ah jërëjëf Ndukumaan jërëjëf Kaffrine jërëjëf ñu fi jël kàddu monsieur le maire de Kayi maa ngi lay sant bu baax di sant sama xarit sama rakk le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane kàddu yi mu fi yëkkati dégg naa ko bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax di sant nag sama ministre Abdoulaye Seydou Sow jëlu fi kàddu jëlu fi kàddu parce que protocole protocole d'état moo tax bu président ñëwee benn ministre du wax ndax la ñu war a wax mën maa koy wax waaye gis naa liggéey bi sant naa la ci gërëm naa la ci sant naa doomu Kaffrine yépp ak responsable yu Kaffrine rawatina le ministre secrétaire d'État Mayacine Camara de Koungheul le président du conseil départemental de Kaffrine ministre conseiller, tout comme le président du conseil départemental de Koungheul, également Assane Diop ministre conseiller. di sant nag population yu Kaffrine di sant imam yi fi yendu di ñaan yal na yàlla nangu seen ñaan ah di sant famille parrain bi waaye nag di sant parrain bi suñu papa Thierno Birahim Ndaw danaa si ñëwaat léegi ci kàllaama nasaraan ah, dama war a jóge fii léegi dem ndukku dem Nganda te xam ngeen ne guddi na waaye waa Nganda may xaar te danaa am bég mbégte dem fekk leen ba foofu Monsieur le maire de la commune de Kayi, notre hôte, Monsieur le maire de Kafrine, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, Messieurs, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le Président du Conseil départemental de Kaffrine, Monsieur le maire de la commune de Kaffrine, je l'ai rappelé, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Honorables autorités religieuses et coutumières, chers parrains, chères populations de la région de Kaffrine. Merci du fond du cœur, population du pour votre accueil chaleureux et enthousiaste dans la pure tradition ancestrale de votre terroir si attachant. C'est avec la même ferveur que je viens à votre rencontre aujourd'hui pour procéder avec vous à l'inauguration du centre hospitalier régional Tcherno Ibrahim Ndao de Kafrine. Il était temps avec l'ouverture de l'hôpital Tcherno Birahim Ndao, la région de Kafrine va enfin disposer pour la première fois de son histoire d'une infrastructure sanitaire moderne dont l'architecture innovante permet son extension pour s'adapter aux besoins futurs de la région. On l'a rappelé, avec une capacité de 150 lits, cet hôpital couvre une quinzaine de spécialités médico-chirurgicales, la gynéco la pédiatrie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la chirurgie et l'orthopédie, entre autres. Il a été financé entièrement par l'État du Sénégal pour un coût de 20 milliards de francs CFA. L'hôpital Thierno Birahim Ndao, comme ceux réalisés à Kédougou, où je me rendrai lundi, Sédhiou, je me rendrai dans les prochains mois, ainsi que Touba, fait partie d'une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire de notre pays et relever son plateau technique avec un service d'aide au diagnostic doté d'équipements de dernière génération. Ici à Kafrine également, c'est le plan Sénégal émergent qui se décline en actes concrets, notamment dans son axe dédié au capital humain. Et assurément, l'accès aux soins de santé est une dimension fondamentale du capital humain. C'est ce que nous faisons ici et ailleurs, toujours dans l'esprit d'inclusion, de justice sociale et d'équité territoriale, c'est-à-dire le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. C'est tout un symbole que ce centre hospitalier porte le prestigieux nom d'un digne fils du Ndokumane, administrateur civil hors pair, ancien gouverneur, icône de l'administration centrale et territoriale, ancien maire de Kafrine, entre autres charges, Tierno Birahim Ndao a été e un fidèle serviteur de l'État. Il est de la catégorie de ce que l'on appelle grand commis d'État parce qu'ils lui sont dédiés corps et âme. Il est juste que l'État du Sénégal se souvienne et distingue ses fidèles serviteurs les honore et les offre en exemple aux générations actuelles et futures. Je voudrais le féliciter, le doyen Thierno Birahim Ndao, et lui exprime avec affection la gratitude et la reconnaissance de la nation et lui souhaiter bonne santé et bien-être. Mesdames et messieurs, la pandémie Covid-19 qui a durement éprouvé tous les systèmes de santé du même les plus sophistiqués, rend encore plus pertinent nos efforts de renforcement de notre dispositif sanitaire afin qu'il soit mieux adapté et mieux préparés à relever les défis futurs. Voilà pourquoi j'ai demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne dans ses composantes infrastructures, j'allais dire équipements et de ressources humaines. Le recrutement de 2000 agents de santé en 2020 et 21 s'inscrit dans cette perspective. Il nous faut en même temps réformer la gouvernance du secteur pour un service de santé plus efficace et plus efficient. Continuons d'investir dans la santé. C'est vital. Mes engagements aussi, mais j'allais dire, engageons-nous aussi dans les réformes, les réformes qui valorisent nos investissements. C'est essentiel. Dans cet esprit, j'exhorte l'administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao à faire honneur à l'illustre parrain en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l'entretien ainsi qu'à la maintenance des ouvrages et des équipements. Je salue, félicite et encourage vivement la direction le personnel de l'hôpital. Je félicite le ministre de la Santé de l'Action sociale, ainsi que ses équipes de travailler jour et nuit depuis le début de la pandémie Covid-19, mais également qui efficacité ce projet exécuté efficacement par l'entreprise Ellipse Project dans le respect des normes et des standards en la matière. Je voudrais, avant de finir, féliciter et remercier M. Olivier Picard pour la performance de votre entreprise. Non seulement vous avez été au rendez-vous, mais la qualité du travail a été constatée. Mieux, vous avez fait travailler les Sénégalais, aussi bien dans la construction que dans les équipements. Je tenais à vous féliciter. Je sais que vous avez encore des rendez-vous avec nous et je vous donnerai rendez-vous le juin à Wurosogi pour la pose de la première pierre de l'hôpital de niveau 2 de Wurosogi dans le même format que celui de Kaffrine. Mes chers compatriotes de Kaffrine, je suis venu également vous dire que depuis le Conseil des ministres délocalisés de Kaffrine, Nous avons pris l'engagement ici même à Kaffrine en 2015. Et je tiens toujours à respecter mes engagements. En 2015, l'État s'est engagé, à la suite du Conseil des ministres délocalisé, à investir 235 milliards 643 millions pour la mise en œuvre de 30 projets et programmes d'investissement phares dans la région de Kaffrine. Le suivi fait du niveau d'exécution financière de 147 milliards 279 millions 459 165 000 francs pour être précis a été exécuté, soit 63% de notre engagement au moment où Entre 2017 et 2020, l'exécution financière a atteint 126 milliards en trois ans en faveur de la région de Kaffrine, comme renseigné ci-après. Dans le secteur primaire, 8 milliards 802 millions plus 25 milliards de ressources extérieures ce qui fait le secteur de l'agriculture, de la pêche, j'allais dire la pêche continentale, c'est principalement le secteur agricole, le secteur de l'élevage qui a concentré plus de 33 milliards 800. Nous avons mis 33 milliards pour le secteur quaternaire en ressources propres internes et au total 66 milliards. dans cet hôpital. Vous retrouverez ces investissements sur la route Kafrine-Ganda. Vous le retrouvez sur le PUDC, sur le piment, sur toutes les infrastructures sociales qui sont disséminées à travers les territoires de la région de Kaffrine. Demain, je vais lancer le premier pôle emploi et entrepreneuriat en faveur de la jeunesse ici à Kaffrine. Vous le savez, on avait, on avait déjà beaucoup fait, mais je me suis rendu compte qu'il faut encore beaucoup, plus. faire plus et mieux. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé du programme d'urgence pour l'employabilité et des jeunes et des femmes. Programme, vous le savez, doté de 450 milliards sur les années 2021, 2022 et 2023. Et sur l'année 2021, les 150 milliards vont permettre le recrutement qui va démarrer, qui a presque démarré, puisque les avis sont donnés de 65 000 emplois sur lesquels vous aurez déjà ici 1020 emplois salariés, 552 formations, des modules de formation professionnelle et de formation des apprentis. 3 milliards 900 millions pour des financements directs en faveur des jeunes et des femmes ici dans la région de Kaffrine. 2 milliards 800 millions de crédits seront octroyés pour 2530 bénéficiaires ici à Kaffrine. Et 540 millions seront donnés en guise de subvention pour les tenues scolaires et ça en faveur des tailleurs de la région de Kaffrine pour confectionner ces tenues. Le domaine agricole de Boulel, le DAC de Boulel, sera réalisé pour un financement de 14 milliards 300 sur un financement de la Banque islamique de développement dix mille emplois directs fukki junni liggéey xëy ci dag boobu dana am déjà ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall dina lancer appel d'offres yi ci weeru juillet bi ñu tàmbali liggéey bi avant décembre 2021 c'est pour vous dire simplement chère population de Kaffrine